mais nañ ñëw ci sénégalais yi lu ñu enduré tey journaliste yëpp ñu ngi choqué choqué lu xam nga lu may wooyee choqué choqué lu ci li ñu gis walla dégg ko ci forme d'arrestation sur ay témoignages yo xamné xalé yi génn ci kasso bi ñoko wax ñepp ñi ngi daw di bëgg recueillir ay témoignages mais li dëgg mo li dëgg ba nek dëgg ñun ñepp xamoon nañ li ah wala journaliste bu ne xamoo woon lii matowoo ko doo journaliste xale yi ni leen arrêté ni mu arbitraire conditions yi leen arrêté ni leen bundu xataalee bavure yi ci am journaliste ci yépp en silence am nga noo ko yëgee ak noo ko xamee bu nekkee na nag ci réew mi nga nekk amul rédaction bu ko umpale loolooy pratique yu terrible yi amul rédaction bu ko umpale léegi jot appel bu joggé prison seen heure d'appel mais xalé yi toguñu ba génn doog waxa ah. wax nañ waxati seeni mbokk wax waxati ñun ba ñuy jàpp ak loolu yëpp parce que on commencé à mettre à nu yenn mbir yoo xam ne jaaduwul ci réew mi te waru fee am muy des actes de torture ak bavure yoo xam ne waru fee am kan moo mën a waat ne lu ñu mel gisu ko fenn wala xamu ko fenn confidence pour confidence man dama daan toog nit woo ma na ma sa moroomu journaliste tel bu nekk bii group moo ma jox sa numéro na ma noo xaaral ma wool grand bi xam naa moom woy dina am fitu wax ko ma ne ko mais ki ko wax yor na rajo yor na tele yor na journal yor na sit internet man nag man maa am fitu wax ko wala journaliste ci boppam woola na le grand oui il y a tel dossier man xam nga man sama rédaction dañ ma koy terax te tel dossier bobu ñepp xam nañ ne c'est scandaleux Jaadul. ñaata yoon la ma ko journaliste def day wax ba daaneel man ko wa boy yow xana man rek nga fogg ne ma wara dugg kasso. ce métier là a des risques Ben, élément bu ma dem ba njaay waxoon bu am solo ci maison de la presse arrêtez de dire le document confidentiel si le journaliste estime que cette information menace la république à mon mu confidentiel mon ñàkk nek confidentiel comme na avons beaucoup publié publier lu ko assumer publier Julian Assange ak. Euh, l'américain bu nekkoon NASA ba mu koy publier xam na lu ko ciy fekk xam nañ ne le gouvernement américain dina ko persécuté ba fu mu mënta nekk xam na ko Julian Assange xam na ba muy publier affaire Wikileaks lu ko ciy fekk ma Demba Ndiaye wax na ko fële maison de la presse ma toog waxuñu la luy tal réew mooy li wax na leen tous les pouvoirs organisés ont des choses à cacher wa man sama moroomu journaliste bu jël téléphone am woo ma wax ma grand xam nga kii dafa na diw wala diw diw boobu ko ne la yow yow fa nga rédaction la mu ne ma noo xam nga foofu nu mu demee xam nga gars yi moom mu nu mu demee voilà foofu am na nu mu demee mais fii garaawul ab Alé am na fitu toog wax ko mooy picc moom boppam garam bu ko neex lay dal conspiration ak complot yum am 2021 ba 2024 lepp c'était avec la bénédiction de la am une presse bu ci dougal loxom ba tak ci rip amna une presse bu ci dougal loxom ba tak ci rip gàddul ko le régime ak les comploteurs xoolal audition yeeg lépp luy génn da ngay auditionner un leader d'un parti politique wala benn activiste wala yooyu bu audition bi jeexee minuit une heure comme la ma waxoon bañ may auditionner police deux heures du matin l'audition bi jeex ma leen audition bi suba dina génn ci benn journal te dina fekk na man génnewuma ko dans la mesure où juste dans les lieux de la détention waaye dina ma ah bon tu verras audition bu def journaliste mënu ci ñun pirater wuñ compte ken, ko def lu joxuñu ko xol leen saa bu exécuter opposant ou pour rendre que ko de manière scandaleuse dañuy le audition mu am journaux yu ko gàddu man am na benn journal boo xam ne sax dama ko wax Mamadou Seck <laughs> jour jour boobu bañ ñu toogee ci audition mooy sama deuxième audition sûreté urbaine dama ne ko Mamadou Seck xanaa yor audition bu ma amul man parce que man sama deuxième audition sûreté urbaine dama ne leen je réponds à une question effectivement looloo nekk ci fin bi bañ jox ma PV bi ma ne leen je ne signe pas y avait pas mes avocats mooy deuxième audition bi d' ailleurs merloo woon euh, procureur ba procureur bi vu son comportement. Omar dit na non da deuxième audition ma ko pourtant journal bu ci bind article bay développer. voilà ce que Papa a dit non qu'est-ce que c'est ça man ko oui audition bu ba day am thèse bo xamné gouvernement bi le régime les comploteurs am nañ groupe whatsapp Moi, ay chroniqueur yu leni soutenir lolou que def la une des journaux lolou nek débat ci plateau truc ñu am sen chroniqueur même élément de langage mom moom jox ñep ñoñu buñu démé lolou lañuy wax ñun journaliste au lieu jël traité ko un esprit critique que même élément de langage nous lañuy tok utiliser ko très souvent dañu Nous deug. nañu waxante ko imam ndaw toguñu nous avons ñu ay téléphone satellitaire satellitaire la yoron. téléphone xaw lan la ñu ne ay devise lañ fekk ci biir këram 37500 xaw ma lañ fa fekk ay pistolet lu ne fusil de chasse lañ fa fekk mais balaa ñu koy yóbbu tribunal ba acquitté ko tout simplement dund na ci kaso yi loo xam ne kenn duñu ko mais loolu bu ñu déggee loolu yépp presse moo ko gàddu ñu présenté ñu ko comme peut-être le successeur de Ben Laden xalifa Sall mi lan la dajul ci affaire caisse d'avance bi lan la dajul ci mbiru caisse d'avance bi lu ne luñ ko ci waxalul luñ ko ci bindalul matin midi soir chaque jour ma chronique pour dindi sos yi wax dëgg bi Karim Wade ñu fii di ñu wax na compte Singapour 46 milliards ana compte boobu ba tey je me rappelle bien defoon nañu sax benn plante xawma maanaam tous les complots yoo xam ne dañ ko togg ci biir régime bi ba togg état bi presse bi seen presse am la ko jox ñu jaay ko askanu Sénégal kon ci am nañu responsabilité bu rëy ci lii Fini ñu toll ci réew mi l'affaire DG Badji Filbert Sambou journal mo xey genn ne ñaari gendarme yooyu dañoo organiser ñoom seen fuite daw parce que am na peut-être lu ñuy reprocher seen bopp feni kese xëy suba teel ma toog sama biir kaso di seetaan la disparition de DJ Badji Filbert Sambou est liée au décès de Papa Al. te ñooñu musuma leen xam awa DJ Badji sax maa ngi doog a xam ne moo nekkoon garde corps Nafingom Ngom ba mu génnee àddina doog a xam ne ndekete garde corps man Papal parce que lan la ci journal bu bindoon loolu jublu dafa xam lu ñu xamul mu bëgg a créer une fausse piste wala dafay nëbbal dara état bi seeni nit génn ñu jox leen ñun plateau ñu toog amuñu benn esprit de critique par rapport ak ñoom ñu wax Sénégalais yi ne leen Sonko ak Pape Alé ñoo éliminé DJ Badji ak Fulbert Sambou ba sànq ba tey procureur nee na dafa ubbi enquête woowuñu laaj na ci wow na wala tooy na wante woowul kooku wax lu tol noonu timit mu wër ci plateau yëpp di ko fa wax kon kay ñun presse bi am na loo xam ne ñun ñoo ko permettre parce que boo toogee di ko wax jàkkalam dama ne la yan firnde nga am ci li ngay wax génnal say preuve munoo wax di sànni dem sa yoon di créer buzz di dem sa yoon esprit critique wante journal bi waxoon na ñooñu ñu organiser seen disparition procureur ba tey jii dafa ubbi enquête limite nag njabootu ñaar ñooñu dem mooy Daba juuf ñu ngi ko suul ci semaine bi ñu génn Fatick moo nekkoon soxna yi kii nga xam ne moo di Didier Badji bëgg naa xam lu xew ba dem xeex na ko ba dem fekk ji Didier Badji njabootu Fulbert Sambou dama jël na nag fen ñu permettre ay nit ñu koy fen ci ay citoyens yoo xam ne defuñu lu dul wax li ñu xalaat ci ñun yore réew mi li gën a garaaw tey soo seetloo affaire report élection yi bañ ko waxee ba tey jii boo mee moor ça fait la une des journaux moo nekk 80 morts ont fi mars 2021 en Bataille est-ce que foog ne presse bi bu taxawoon ni mu ak responsabilité ñu dem ci ba média yi bitim lañuy wax ci réewum sénégal lañuy jël ñun pour wax te lañuy wax yépp ñun ñoo leen ko gën a xam ne 2021 ba 2024 bavir yi ñuy wax assassinat yi ñuy wax mais ñun ñëpp xam nañ ko les parents des victimes ont parlé, ont pleuré partout. Nous ne ci pat la majeure partie la majeure partie nous ne pas pat en certains moments la presse a fermé les yeux Nous sommes ci Si du boo ni ay ils sont choqués par dégâts matériels yi kenn mënu ko rafetlu parce que man damay wax ne xale yi BRT bi ngeen di bëgg a toj ak ay teer yooyu jërul yàq parce que boo leen ko yàqee ñu ubbi waat beneen ligne de crédit lebaat xaalis defaraat ko kon suñu xaalis rek la ñuy yàq c'est pas normal d'accorduma ci mais à côté am na loo xam ne mënatuñ ko defaraat mooy bakkan yu famille yu sëngeem jooy am na fi ñu ne ci pat wala buñ ci waxee c'est à peine wala boo ubbee journal une bi dinga xam lan la oreille droite gauche yëpp di ko xam ventre journal bi xam ko li ci ëpp lu tax sénégalais yi xam ko teg ci seen bët réseaux sociaux yi la tey jii nag da gis ñuy ŋàññ réseaux sociaux yi waaye les réseaux sociaux duñu informé xam nga lu tax xale yi daw làqatu ci réseau sociaux yi parce que daf leen leer na leen médias traditionnels duñ ko wane ndax sax amaana télé bu fi jéng wane ko ñu dagg sa licence wal fajri seen TV je crois aussi am na benn manifestation mun daggoon seen signal moo tax xale yi jël réseaux sociaux yi l'état a compris looloo indi mu dagg internet bi tey bavure yi ngay gis assassinat tir, bal yep, du journaliste ko filmé à 90% Yep, pour cent yépp ay xale yi ñoo ko filmé téléphone réseaux sociaux yi tas ko ci réseau yi à 95% pour cent mais le lendemain gis nañ acte bi on rebondit pas sur ça pour tirer la sonnette d'alarme Ah bon, posons-nous la question est-ce que suñu rôle def nañ ko wala defuñu ko est-ce que luñu warona def la wala luñu wartona a def de pauvres Sénégalais innocents ont été torturés ñep xam ko gis ko vidéo yi luy circulé la ni ñu rey leen nous ñu à jamais maa ngi mon frère Ngom maison des reporters di def un travail exceptionnel nga foog na ñun presse bi bu d'une certaine manière l'état du arrêté yooyu bu yàgg da gis manifestation yi am bañ génné nervi yi ñuy tiré amna télé yo xamné musique lañ daan teg du genre circuler y a rien à voir te bobu nervi yi ñi ngi ray ray gu metti ndax bilan gouvernement bi nénañ na xawma leen à 29 morts mo am on va dire qu'on va pas risquer notre vie di génn ndax dañuy dal ci ko journaliste d'accord nañ mais buñ yebee journaliste wala loolu su sun doxine la parce que l'État sait que moom piégé na fépp il contrôle tout le monde comme lu ma waxoon président Macky Sall mu toog ma ne ko président patron de presse yi ngay contrôler jour bi pënd bi di wëree ñoo lay njëkk a mbas parce que loolu lañ dund ak Abdoulaye Wade moom la ñuy dund ak yow fas yéene ko bëgg a dund ak beneen président bu amul fulla ci boppam parce que loolu moom la ñuy dundee dund nañ kook Abdoulaye wad mu neex ba dee ñu ñew dund kook yow mu yomb trop gën nga gën leen ko yombal mais bes bu bes bu sentir le vent tourner ñu mbass la mbass go xamne yow da ngay dem ba jaxlé tay ji ña annon ak mom taxaw di wax amna ñuy positionner bam mu amadou ba ci kanu amadou ba taxaw di wax ci mom amadou ba récupérer ñen ñi les critiques les plus violentes aujourd'hui sur le système de Macky Sall ñoo nekkoon xaritu Macky Sall tey ñoo koy defal loolu tax on est au balcon on regarde tranquillement le film on est au balcon on prend notre café tranquillement dara du la pire là, la wax pire déglu leen bu baax li ma leen amna ñoo ne seen plume dañ ko dugal ci deret di bind lu bon rek manam dañ théorie sax génocide parce que loolu laa ko mën a tuddee boo tuddee jël ay xale yu ndaw mu leer la ca àqulaay taala ne réew force obscure nekku fi force spéciale nekku fi force occulte nekku fi terroriste nekku fi ay xale yu génnoon di manifester ba bu ñu waxee ñu ne wéy la violence digg France les black blocs dañuy jaxase Champs-Élysées Macron du toog ne ay terroriste te pourtant foofu la gënoon a yóbbee wax ay terroriste dem seen plume yooyu ñu trempé dans le sax di garantir sax l'impunité au FDS di fen Sénégalais yi di leen wax lan ay rebelle ñoo dugg ci biir Dakar dara du ci dëgg

motax damay wax ne nañu nangu ci séquence de folie barbare bi la presse a participé à forte dose à la manipulation nañ ko nangu a servi d'un terreau fertile la wax ni au régime et aux comploteurs du régime ñuy jàlle lo lo leen neex amna na bo boo manifestation y a eu trois morts nga jël une journée. Nous, ñu la les FDS maîtrisent la situation en oubliant les trois morts l'opposition dispersée en oubliant les trois morts ben bakkan sax dafa il glorifier les FDS yi oui, on peut être fier de forces de défense et de sécurité. Elle est morte, on en fait quoi On n'est pas donneur de leçons, loin de nous. La preuve, les plus nous filé une towa kujab sur réew mooy toll foo xam ne dama jàpp ku nekk war ngaa seetu xoolaat sa bopp corporation bi nag dañuy wax ne dañ ko war a defendre si je suis entièrement d'accord ne ci réew Macky Sall moom ku jógul ci corporation bi nekk victime moom benn instant nga xeexal sa bopp li lay dal du sedd te corporation bi bu ñu koy defar bu ñu ko war a defar ñu ñëpp lañu war a defendre en defendre kii bàyyi kii loolu defe naa ne du lu jaadu kii su ma koy defendre parce que lan lu ñuy wax ne défense sélective wala bu ñuy defaan ki sax ñi ci gën a fës parce que mënoo nag di manger au râtelier du pouvoir bëgg a vouloir défendre aussi la corporation kon ndëpp bi ñuy wax réew mi war nañ ko ndëppal ndëppal timit presse bi moom ko war a ndëppal li xale di wax nii yëpp dañ ma bañ ma jàppee

on a même encouragé tous ces, en traitant ces jeunes-là de voyous, de, voyous bandits. mais comment ban bandit moo col blanc bandit col blanc man moo mo moo yes, de ci taxaw di wax boy ay bandi lañ <laughs> na nañu enquête dama ñu objectif ñom yu ñu def ci

Nous nañ combattre Ousmane Sonko ñu ngi ko jël fan Cap Manuel ok nekul sax Chor wa ñu bëgg ñoo ne waya des rebelles dugg ci bato bi di Dakar mission par exemple se battre na mais vraiment voilà la vérité mettre l'État devant ses responsabilités amuñu droit bref ku nekk ak sa conception Mbiri, mais foog naa ne on va waxtaan na projet de loi d'amnistie bon on verra bien la lecture juridique yi